jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal tey ñu ñëw ci fas yéene leeral ci gént lu aji ci mbott ndax moom mbokk na ci gént yi nga xam ne nit ñi dañ koy faral di laaj waaye gént la boo xam ne tamit yombut nag moom waaye am nañu koy gént ci nit ñi ndax lépp lu am rek eh, ala kulli xaal doomu aadama yi dañ koy faral di gis di gént waaye gént la gu mat di bàyyi xel mbokk mi nga xamne da daa gént gis mbott yi bari ñuy yooxu ci barap ko ni mbott yi def euh amna ci ño xamne lolu bakkar yi bari moko waral danoo bari ay bakkar ala kulli hal batay mbokk mi nga xamne da daa gént gis mbott yi bari ci barap lolu man na teg te am ndaje ay mbokk yi nga xamne yalla da dogal dañuy faral yittu ci du jëm ci walu génte ala kulli hal mën ngeen a jël numéro bi incha allah rabbi ku am gént rek ci ngay envoyé vocal wax sa gént waxtu wun la dégloo incha allah dinañ la tontoo ci lañ xam numéro bi 78 la 443 75 27 mooy numéro bi nga xam ne ku am gént ci koy envoyé xam naa di leeral laal lu am solo ñi nga xam ne dañuy envoyé message euh, écrit ci ci commentaire yi loolu baax na lool waaye suñ sañoon nag ngeen di envoyé vocal ñi mën di leen leeral seen i gént ndax dafa am yu aju ci gént gi lu baree baree bari am mbind kese mënu koo leeral lay des am na ci yoo xam tamit doo ko mën a expliquer ci mbind kon ñu ngi sàkku mbooleen ñi nga xam ne dañuy envoyé commentaire ñu ngi leen di ñaan nañ jël numéro bi déglu vidéo yi jël numéro yi envoyé ko ci wax seen vocal wax seen gént suñ ko dégloo dinañ leen tontu indi leen ci ay leeral yu am solo ndax gént daa am solo loolu ci dundub doomu aadama bi nañ ci bàyyi xel baax baax gént du caaxaan ala kulli xaal nag ñi nga xam nag dañuy yittewoo moo xam seet wala firi gént wala xëy di mel noonu yittewoo seet ñoom bu leen neexee mën nañoo woote nga xam dañu bëgg ku leen listixaara bu leen neexee mën nañoo woote waaye ñi nga xam ne moom gént kese lañ am ñu ngi koy waxaat di ko waxaat nañ ñu ngi ñaan ngir yàlla képp ku déglu vidéo bi fekkee gént kese nga am enregistré leen numéro bi whatsapp nga envoyé vocal dinañ leen tontu jarul kenn di woote naan dama bëgg ku ma gént ñi nga xam nag amul whatsapp amul dara jaruñuy ah jaruñuy woote tamit ñu ngi leen koy ñaan ngir yàlla tamit jaruñuy aajowul ñuy woote eh, ku amul whatsapp munuñ laa tontu ci gént ndax gént gi nekkul lu programme ñun gént ci par vocal lañ koy tontu ñu ngi koy waxaat baax ngeen bàyyi ñu ci xel dimbali ndax liggéey ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye bu ñu waxee ne lii moo koy defar ñun ñëpp dañ cee war jàpp ndax ngeen bàyyi xel tamit ñun ñii di wax yéen lañu fi nekkal eh, kon bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax ala kulli xaal ñi nga xam dañu am jafe-jafe nag ci feebar moo xam hémorroïde wala ndox si xee xëy di mel noonu ñooñu bu leen mën nañu woote après jox leen ay tegtal incha allah rabbi ala kulli xaal wala ñi nga xam dañu bëgg a xam wala seen biddiw ak yu aju ci loolu wala ñu bëgg a xam seen saraxak wala ñu bëgg a takk soxna xam diggante bi ànd na wala ñu bëgg a xam diw diw ànd na yooyu yëpp leen neex ñu mën nañoo woote waaye ñi nga xam nag dañuy envoyé vocal mooy ñi nga xam ne gént lañ am ñooñu aajo wut ñuy woot nañ envoyé vocal wax seen gént nañ leen tontu numéro bi nag mooy 78 443 75 27 78 443 75 27 numéro bi am na whatsapp incha allah ku ci envoyé vocal nañ leen tontu eh, jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal mbokk mi nga xam ne daa gént gis mbott yi bari di sab ci barab am na ci ñoo xam ne loolu bàkkaar bari lay tegtale si ñoom am na ci ñoo xam ne loolu naqar la am na ci ñoo xam ne gént gis loolu loolu xew-xew la ci ñoom xew-xew buñ leen annoncé mbokk mi nga xam ne nag daa gént gis mbott di wax ak moom waaw loolu lu baax la ndax mbott moom euh, xeeti maat yi nga xam ne yàlla moo leen bind mbindeef yi nit ak ginne ñoo lay wax ci gént nga gis ko wala nga ñàkk koo gis waaye lu weesu lool lépp lu ñu wax ak yow ci gént boo ci bàyyee xel dinga ko gis nañ ci bàyyi xel baax a baax nit ak ginne rek ngay gént ñuy wax ak yow mën naa doon dëgg mën naa ba ñu doon dëgg waaye bu mbëtt dee wax ak yow wala leneen lu mel noonu li mu wax yow soko jappé nga bàyyi ci xel rek di nga ko gis kon mbokk mi gis mbott di wax ak moom ci gént baxna batay mbokk mbott mi nga xamné da da daa gis ay mbott yu bari ci barap day tegtale am ndaje nit ay nit batay tamit mbokk mi nga xamné da daa gis mbott dugg ci biir kërëm loolu momit baxna gan la ganu kilifa lay tek incha inshallah rabbi batay tamit mbokk mi nga xamné day liggéey tur yàlla wala muy wér di rek xeeri tur yàlla yépp miy faral di gént di gis ay mbott ci barab bi mu nekk loolu day tegtale rawaxaanam rawaxaan yi la walla ay àndandoom ba tey tamit mbokk mi nga xam day liggéey tur yàlla gént di ànd ak ay mbott luy dox tamit lool day tegtale rawaxaan yi ak àndandoo yi lay tegtale ba tey ala kulli xaal ba tey tamit mbokk mi nga xam ne daa gént gis mbott di dugg ci këram mu dàq ko wala mu génne ko loolu lu muy tegtale mooy nit koo xam ne nit ku baax dëgmal na këram mu koy doy dal ba tey tamit gént gis mbott rek day tegtale kilifa day tegtale kilifa incha allahu rabbi eh, alaa kulli xaal mm, ba tey mbokk mi nga xam ne daa gént gis ay mbott yu bari di sab ci barab loolu day tegtale xew-xew xew-xew bi nag mën naa nekk xew-xew bu bànneex mën naa nekk xew-xew naqar kon mbott gént gis ko am na ci ñoo xam ne ay mbégte am na ci ala xaal waaye am na ci loo xam ne ay naqar ci ñenn ñi kon mbokk mi nga xam tamit ba tey daa gént gis ay mbott yu baree baree bare loolu tamit mën nay tegtale am ndaje ay nit bu dee ci biir këram baax na ay ndaje ay nit lay tegtale ndaje xew-xew boo xam ne day waaja am kër yëgal ko ko incha allah rabbi kon eh, gént gis mbott takk-takk yi nga xam ne leeral nañ ko ci incha allah rabbi eh, nit ñi mën nañ cee bàyyi xel baax a baax ku ci nekk rek bu la dikkalee nga xam lu ci nekk nan lay tegtal baax a baax kon mbokk yi nañ bàyyi xel ci tegtal yi baax a baax kon ñu ngi fàttaliwaat numéro yi 78 443 75 27 mboolem ñi nga xam ne dañoo am gént incha allah rabbi Euh, du aajo wu ñuy woote nañ envoyé vocal wax seeni gént suñ leen dégloo dinañ leen tontu kon nañ ca bàyyi xel baax a baax kon ñu bàyyi xel ci xeeti gént yi ñi nga xam nag dañuy faral laaj ñoom dañuy gént lu bari gént nag dafa bokk ci doomu aadama bi nañ ko leer laat xam naa incha allah nañ jagle benn spécial leeral boo xam ne daa jëm ci gént spécial yi ci gént yu baax yeeg yu bon yi ñi nga xam nag dañuy gént di ko fàtte loolu tamit am na ci ñoo xam ne dañoo mënta jàpp moo tax luñ gént dañ koy fàtte am ñoo xam ne dañoo mën a jàpp lool luñ gént donte am na téeméeri at waxtu buñ ko xalaatee eh, dañ ciy daal di mën a dikk carrément loolu nit ñi ñoo wutee noonu moo tax ñenn ñi eh, di mën di gént benn mbir jàpp ko ba buñ seen xel demee ñu wax ko waaye ñenn ñi dañuy faral di gént waaye waxtu woo xam ne xëy neen bët set day mel nii géntoon nañ waaye dañuy fàttali ñuy gént incha allah rabbi kon nañ ci nit ñi bàyyi xel bu